Reunir, reunir, manegar com comum. Reunir, reunir, manegar com comum. Reunir, reunir, manegar com comum. Reunir, reunir, manegar com comum. Reunir, reunir, manegar com comum. waaw waaw gàkku. mais dama ne gannaaw gannaaw dama bëgg nga firi gis nga li la gasoo wax xoolal dama bëgg a nga bàyyi lépp seet gannaaw yow nante nga. waaw waaw te da ngay xool ñi nekk sa ginnaaw. te xam naa ne bàyyi nga lépp seet sax te affaire bi te dama bëgg nga firi. xoolal congrès bi dañ ko war a toj grand le 11 dañ ko war a toj. yow maanaam paarikaal firil. voilà relaxal foo aw yoon la. jaajëf gàkko yow kenn du yow bàyyi lépp mu sedd leneen ak leneen ak sa gannaaw xoolal bu dee ñun rek na sa xel dal baal lépp mu sedd maa la wax loolu. Eh, mbokk yi eh, wax dëgg yàlla eh, waxtaan naa ak samay jigéen. Mhm. waxtaan ak jeunes yi. te mhm. di attardé wu ci porte plainte yaakaar na dañu nekk ci yoon. dëgg la te ku dul baale. Euh, doo jégalee dafa am baal ak jégal euh, ñun nag comme que dañ nekk ci yoon euh, waxtaan dina am sama diggante ak avocat yi wax leen ne yoonu tribunal dem ak ñëw yaa waxoon maa waxoon ñun gis nañu leneen lu gën a gaaw loolu li gën a gaaw mooy dañ koy jégal yàlla mi nga xam ne xam na lépp dina atte donc moment bi ñuy dem tribunal di ñëw di jaabante loolu dem defi ay social war a def visite de proximité xaj na ci kon li ngeen wax nii Euh, gis ngeen ne non stress. yaakaar naa non stress dama bëgg relax ba sa yaram ñun le 11 dañuy préparé. te on va la faire à l'américaine. Ah, man Amérique laa jógee professeur euh, danseur laa. Mhm. moo tax ma ñëw fii nii pour congrès bi mais gannaaw dama bëgg nga changé xoolal firil. xool Obama nu mu daan def président ah. Obama da daan taxaw di firi di kii gannaaw dama bëgg xoolal nga yëngatu woon Sénégal ne xoolal yow instant affaire météo la. zéro stress non non mais loolu feeñ sax loolu. ñun dara météo ñu. Ah, nous dara métti wuñu ñun dara le 11 e euh, congrès bi. Mm-hmm, euh, ñun euh, lépp lu ñu waxal rek ah. mm-hmm. parce que yaa ma am na leen loo xam ne moo gën a waxu mooy jëm ci li nga xam ne mooy bëgg-bëgg président Macky Sall ñu xëpp ci suuf këpp yalwaanam def li nga xam ne moom mooy Sénégal ñu ñëpp ñu bokk ndey jëm ci kanam mm-hmm. benn nit ci 14 millions sénégalais mënul mm-hmm. tax ñun ñu bàyyi suñu ay ambition parce que dañ ko yónni mm-hmm. dañ ko yónnee ah pour mu jéem ñoo tardel te ñun <laughs> li xale di wax <laughs> naan sama yaay mu yónni dafa yàkkamti ah ñun nag euh, militants yi ñoo ñu yónni te dañoo yàkkamti té liñu bëgg moom mooy ñu dem jëli chaise président tok ci té inshallah allah dem. paquet lan laal la ñu di gaale koog moom ne du xeesa dox ba kenn la ñu di ay gàkku dox xeesa do paquet lan laal la ñu di ay way bi dox xeesa dox ba kenn laal la ñu di gaale ay gàkku do paquet lan ba kenn laal la ñu di gaale koog moom dox xeesa dox ba kenn laal la ay gàkku dox xeesa dox ba kenn laal la waaye Ahmed moom wax dëgg yalla ku jambar la yalla ko yalla defal jàmm nit ku